waaye Faranse man na gooru Sénégal ci biir nag laaw la ma faraañse nyogene gëna lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll futa tooro ñoo reina roy abdu bukar mbokk safo sen sen bi di xam sam tv dellu siwaat naa ak yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñaar ci Alburi sëy na Mbour naa ak yéen ci fukkeelu pàcc ba ak benn ba ci doomi baayam jooju nga xamante ni seen ñaari baay ñoo bokk baay muy Alburi Penda te moom mu bëgg a oññeeku dellu Jolof kon ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen sëñ Naam Mbàkke sëñ Modou fàtti Xëri sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Abdou Aziz Touré di xalifa sëriñ Aliou Touré ca Faas Muxtaar Sidi Njaay ca Paris ak kipango yi mboor yi ak mbatit yi sàmm sunu mbatit cosaanu senegal daara yi sëñ Moussa ak support xam sam réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ziare mbokk yi dencee ci YouTube bi ñëwoon nañu ak yéen ci fukkeelu pàcc ba ak benn bi Alburi Penda di wàññeeku ngir dellu Jolof netali yi Sidi mbay Ndiaye ak Sakko ki gise ñoo koy nettali Sakko ki dellu siwaat na ci tàggatoo Alburi Penda bi nga xamante ni ca fukkeelu pàcc ba ak benn ma nga doon wax ak waa Jolof yi wax ak moom pour mu wàññeeku ni leen mbaa du ngeen ma war ndax bu ngeen taxee ba ma wàññeeku ba noppi ngeen war sama mbokk mi di alburi dana ma faatlu te moom day noo bokk deret sunu deret benn la mu ni nag ca suba sa ma ngay dellu si waat ca tàggatoog alburi penda nee na suba sa nag alburi penda dem luy ji doomu bàyyam jooju di buur ba jolof alburi seenu nee na bi ñëwee def ko ni njaay nanu dellu jolof boole sunuy doole xeex ak tubaab yi bu ko defee tubaab yi danañu ñu bàyyi sunu jolof gee te dem wala boog danañu ñu bàyyi nungu yaay libre wala nga xamante ni danañu ñu faat ñun ñëpp nu jeex maa ngi jéggalu waaye su nu defee nii bàyyi jolof dem Jolof dana nax say kon nak loolu dan ko wara daw ndax fen tollu ke Jolof mag ñi rek ñoo fa muy ancien ya ñom rek ñoo fa des lan la ko alburi seen bu tonto buuba Joob daf ko ni ak buri li nga wax day dëgg la waaye man day fi ñu toll mënuma xeex ak tubaab yi tubaab yi sax yoruñu doole ji moo mën a dékkoo Alburi Penda ni ko su fekkente ni lima ma sàkku ci yow mun da nekk kon nag booy boo nga bàyyi rek ma wàññeeku dellu jolof bëgg lal ko ngir li ñu yoroon ci ay wal ak puutar ñu sotti ko ci laltaay yi ngir ñu mën a xam ñi wàññeeku ak ñi war a ànd ak buur ba Jolof wéel gàddaay gi bañ ko defee ñi ëppoon ci jolof jolof yépp dañoo ànd ak alburi penda ngir wàññeeku dellu jolof fetel ya ñu yoroon ñu sarse ko def ci bal ak puutër daal di tàggatoo nag ak Alburi sëy na bu buur ba Jolof bi loolu amee nag Alburi sëy na bu lii la wax Alburi Penda nee na ko yaa ngi wàññeeku dellu Jolof demal waaye li nga bëgg de doo ko am te mooy dem yëli fi waat jolof li nga xamante ni bi yaa ngi koy sàkku ci ak yàlla te mooy dem ñu fal la loolu moom doo ko am ne la wóor ni boo delloo jolof ay góor yu duggul néegu góor muy tubaab yi ñoo lay jox ay diggal maa ngi jéggalu ci wax ji waaye ngir wax ko ci ay wolof mu leer def ko ne boo demee góor ñu xarafut soo delloo jolof góor ñu xarafut muy tubaab yi ci seen ndigal ngay wéy ñoom ñooy am kilif kilifteef ci yow te yow de xam nga ni Samba Law Pépin la ak man nga xam dem na ba mujj mu doon sama wujj ndax moom Alburi bi mu demee Samba Law Pépin la bi nga xamante ñoo bokk maam moom la tubaab bi fal Buur ba jolo mu ne ko sàmbalaw ba fenn moom nga xamante ni mu gën a doon sama noon ma ngi moom day am na lu nu waatoon loo xamante ni dara waru ko woon a tebbi waaye loolee ma doon fasante ak moom kët teewul suñ ma doon tànnloo ci seen diggante yéen ñaar ci géew mii lay tànn bu ma ni woon buri Penda ak Sàmba Lawbe ko ci bëgg mu doon buur ba Jolof yow mi lay wax nga doon buur ba moom Lawbe ak man nag fanaan nanu guddi goo guddi dootu ko fàtte moom man mi tam dootuma ko fàtte guddi googu ab nawet la woon moom Samba ba Penda mu téye sama laabi fos ci guddi ba bët set ci biti muy taw ci kawam mu taxaw téye sama laabi fos te fekk na boobu man maa ngi ci biir tëdd sangu di nelaw ci sama biir nekk loolu jaar naa fa ak moom yow nag man ngaa dellu man nag li nga xamante ni nar naa ko dama koy def te mooy damay gàddaay dem yow nag li tax tey nga wan ma gannaaw bëgg a wàññeeku dellu bàyyi ma fi ne la wóor ni doo ko am mukk ndax loolu yàlla jox na ko sàmbalaw bi penn ba noppi te mooy falu doon buur ba jolof bëgga doon buur ba jolof moo tax nga won ma gannaaw ngir dellu jolof waaye loolu doo ci jot ndax yàlla sunu borom jox na ko sàmbalaw bi penn ba noppi ci noonu nag ci la Alburi pend wàññeeku dellu Jolof waaye bi mu egsee Jolof rek gis na ni tubaab yi kat fal nañu sàmbalaw bi pend na ko ko Alburi waxe woon Alburi lan moo ko xamal ni ko tubaab yi Samba Laobé Penda la ñuy fal xawma lu ko xamal de waaye ni mu ko waxe woon Alburi Penda bi Alburi Penda dellusee Jolof fekk na tubaab yi fal Samba Laobé Penda buur ba Jolof bi nga xamanteni bi bii Alboury-Pende egsi na ak mbooloom mi mu àndaloon te doon gàddaay ak alburi te mujj wàññi ko Samba Laobé Pende bi ñu fal buur ba Jolof ñëw na moom mii buur ba Jolof ngir seet si Samba Laobé Penda euh, Alburi Penda bi mu egsee Alburi Penda saafonte na ak moom ñu laa mi sonte ñoom ñaar doog a ànd dem yang-yang muy bour ba jolof bu wees bi di sambalo be penda ak alburi penda bi nga xamanteni bi bii won na ci gàddaay ga ngir yakar ni dana falu bour ba jolof to alburi seyni bu niko won yaangi dem way li nga bëgg doko am pal gi yalla sunu borom sambalo be penda la ko jox kon le alburi wax la Alburi Seydi bu waxoon Alburi Penda loola am na tey Jolof sàmbalaw bi Penda moo ko yilif mel na ni ak juboo nag am na seen diggante ndax buur ba Jolof bu yees bi dem na seeti ko ñu saafoonte léegi nag ñoom ñaar ànd nañu ak seen mbooloo dellusi si yang-yang mbokk yi fukkeelu pàcc bi ak ñaar fii lañ koy yemale di leen sant di leen gërëm mm, bari na mbokk yu may wax ni ma Alboury Seyni bu liñ koy waxtaanee daa bariwut bëggoon nañ nga ñëwal nu ci xareb gille bi muy xare bi amoon ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci weeru juin wa juin 1886 diggante dameel Samba bi Khourédia jëmbooj ak buur ba Jolof Alboury Seynabou xam na bu gàddaay gi jeexee du ñàkk dinañ ci ñëw noo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñi joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri cereefi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala ba ñi lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo génn lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro نادي إبراهيم المامي عبد بكر